wajalilaayi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat rahmatullaahi wa barakaatuhu ñu ngi yëkkatee kàddu ci tur sunu kilifa sunu jëwriñ sëriñ Habibu moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ bi sëriñ Habibu ak waa Touba ca kanam ñu ngi lay nuyu te di la siyaare di jéggalu it kàddu yi ñu yëkkati fi sa kanam ndax dëppoowut ak li nu jàngal waaye day ndigal rek lu nu suñta bañ a jëfe naa bu nu la siyaare di ñaan suñ borom yàggal la fi lool suñ kanam te may la ak wér liggéey bi ngay liggéeyal sëñ Tuubaa ni nga ko bëggee yàlla na la suñ borom kàttanal ba nga defee ko noona ci bàkkib sëriñ bi li nga bëggul lu dul moom ci kaw suuf muy ngërëmu sëñ Tuubaa itam donte am nañ yaqin ci am nga ko waaye du doy ndax sëriñ bi bi muy dem ci géej gi wax na ne am na ngërëmu yàlla doog a dem te daa mel ne booba lay doo ko tàmbali kon yow itam gannaaw suñ borom daa yëmut fenn sëriñ tubaa yëmut fenn ci suñu borom yow it yàlla boo yem fenn sëriñ tubaa kon ñu ngi sant bu baax Mbàkke di wax ne mbooloom tubaa ci kanam ñii nag tey ci njiitu sëriñ Habibu li leen indi fi mooy siyaare si la yeesal si seenug laxasaay feddli seenug jaayante seen diggante sëriñ tubaa te nga nekkal fi bi te mbooloo mi ba mu booba ngay jëwuñu Cheikh Sidil Muxtaar ñu ñëw wax la ko nga yëkkati woon cay kàddu yu soññee waxoon ne am naa ci yaakaar te yaakaar jooju alhamdulilah baan suñu boobam dëggal na ko ba fii waxoon ne itam lu yomb lu gaaw la waaye nag daa laaj pëstéef ak ci ñu koy taxaw soññee ci soññee yoo xam ne ñëpp gisoon nañ ko te doon ca dox mu mel ne it ñu ngi ci doon dox ba agsi tey jataay bi nga toog jataay bi sëriñ ñëwee da wax de maa ngi seddali sama laxasaay waaye nga wax ne yaakaar laaj amoon waaye am naa ci yaqiin loolu nag bu buñ ci amee dégg-dégg ñun ñu ne ci kanam mbooloo mi loolu war nañoo soññi war naa tax wawuñoo taxaw wawuñoo geesu wawuñoo yàlla moom suñu laxasaay te war na noo am pas-pas ak yéeg-yéeg bu toll ne lépp loo xamante ne bëgg-bëggu sëriñ bi la ci dëkk bi ñu gëm ne nun noo ko war def te loolu mooy suñu pas-pas mooy suñu yéene kon mbooloo mi na nga xam ne la leen taxoon a jug muy bëgg a liggéey sëñ Tuubaa ci dëkk bi daal loolu rek ca lañ ne ba tey ginnaaw dañoo liggéey ba am jeex nag 2020 bi jeex na ñu dugg 2021 ñëw di yeesluwaat di la leeralal liggéey bi ñu liggéey it ci 2008 bi di di taatanaat itam di digluwaat ndigal di la wax it naalaat naalaat nañ fas yéene gën a feddaliwaat suñu laxasaay ci li li àggagutoon lépp ñu àggale ko yi nga xam ne itam fas nañ ko yéene sumb yit ci at mi ñu sumb ko di ñaan nga defal nu ci ndimbal ci bàkki sëñ bi ba nuñ ko yéene nu defee ko ni Mbàkke noo ngi ziyaare bu baax te fet di suñu jaayanteeg sëriñ bi di ñaan nga yàgg fi loolu te wér ci liggéey yi nga xam ne jotoon nañ koo def daaw ak daaw jéeg lu mel ne bâtiment université bi moom jàpp nañ ne eh, li ciy def dana noppi ren incha allah ba daanu jébbale caabi yi xayma nañ ne xëy na bu ñu ci defaatee ñaar téeméeri million ak juróom fukk dana mat lu jëm ci daaray alxuraan yi daaw jàppale woon nañ ci juróom benn fukk ak juróom ñeent jàngalekat alxuraan yi tamit ab lim ci ñoom àndoon nañoo ñoom ci eh, dawra takwin ya boo xam ne dañ doon dollanteeg ñoom xam-xam ci wàllu yor daara ak taxaw ay donga lu jëm ci wàllu wér yaram moom naka jekk noo nga ci woon bu weesoo bërëbu fajukaay bu lansaar ba ñett ñett noppi woon na ci benn ba moom tàmbali naa dox bañ defoon lansaar yeneen ñaar ya mooy bu nekk boobadeel ak bi nekk kër gol yooyu mooy yi ñu war ubbi fi mu ne nii am na yeneen ñett nag yoo xam ne moom mi ngi dana nopp ci at mi bu caalandee mooy ndaaram ndaam daalu alimul xabiir Touba Njaareem ak daalu xadim ñett yooyu moom daanaka léegi ñu noppi fi mu ne ren ci jaayante bi nga xam ne amaloon nañ ko ci defar defarum yoon bi waaj màggal gi waaj a tàmbali jotoon nañ cee defar juróomi kilomètres yoo xam ne yooyu moom noppi na ba fi mu ne oto yaa ngi daw euh, ci biir tali yi nag da cee am diggante yoo xam ne ak ci biir dëkk bi lu mel ne fii ci wetu tokkoor bi lu mel ne ca euh, wetu arrondissement lu mel ne ca yoonu Touba Njaareem wa jëm fa ñuy wax quartier Mbay Wadd ak Kër Baylaat yoonu njurul diggante yooyu day ay bëre ndox yuy taa yooyu nag lañ fay def moom béton lañ koy defaree du doon du tali yooyu lañ ci jot a defar toll na ci Euh, ñeenti téeméer rek ñeent ñaari junni ak euh, ñaar téeméer fan fanweer ak juróom ci ay mètre carré yoo xam ne defar nañ ko ba noppi bu dee canal ak i tiwo yi nga xam ne ci la ndoxum taw yi di jaare jot nañ cee defar lu toll ak ñetti junni ak juróom benn téeméer ak ci ay mètre ci ci diggante yooyu nga xam ne taataay ndox yi fi la la gënoon a fese lu mel ne euh, ci wetu arrondissement bu ndaam def nañ fa lu mel ne foos boo xam ne ñaari pompe yu mag lañ def ci biir ngir ndox yi bàyyi ko ci arrondissement ba di bàyyi ko buntu kër sëñ Touba romb gendarmerie bi ak li bàyyi ko Touba Njaareem ndox yooyu foofu lay dajee pompe bi pomp ko nag dugal ko ci canal bi dend ak wetu kër sëñ Modou Kara ci wetu euh, rond bi bu ko defee mu daal di dugg ci réseau bi daal di jàll foofu nag danañ fi jaaree gërëmaale waa ONAS ndax ñoom jàppale nañ ñu lool ci liggéey bi ci ñoom ñi nga xam ne ñoo yor réseau assainissement bi ba nga xam ne li Touba ca kanam liggéey lépp bi mu ñëwee fa la koy fa la ko fa la ko def dem bërki démb seen directeur bi ñëw na fi wër na liggéey yëpp sant ci gërëm ci wane ne ànd gi nu ànd ak ñoom jaar na yoon te liggéey yi ñu jot a def yu yu mat a rafetlu la. daaw ci euh, ci màggal gi jub si tamit am na luy tollu juróom fukki mbedd ak benn mbedd yu mag a mag ak yu yam ak yu sew yoo xam ne sëkk nañ ko maasale ko defar ko ba yoon wa bañ ba mën a jàppandi. loolu mooy li aju ci defarum yoon yi nga xam ne jot nañ ko liggéey daaw lu jëm ci wàllu leeral te mooy lamp yi ñuy jënd daaw indi na ñetti junniy lamp yoo xam ne euh, euh, installé nañ ko ci quartier yi wër dëkk bi yëpp ci biir ci biir corniche bi ak ci bitti corniche bi ren ji waajalaat nañ ci yeneen juróomi junni yoo xam ne fas yéene nañoo bala ñoo màggal bu ci yàlla a ñu indi ko installé ko lu jëm ci wàllu social bi nga xam ne moom la sëñ Mourtala jiite daaw li ñuy dimbali ci ay nit jàppalanteeg ñoom ñii ci ay ordonnance ñii ci ay dëkkuwaay yooyu matoon na ñeenti junni nit ak ñeenti téeméer lampi corniche ba tamit poto yi commandé nañ ko ba defar nañ ko bitim réew ba ma nga ma nga nga yoon wi ñëw ñu war a jënd Euh, am na ñoo koy gëstu fi mu ne bu ñu noppee dañ koy jox Senelec bu ñu ko validé ñu jënd kaabal yi daal di jublu ci liggéey bi ndax jëmmi lamp yi moom mi ngi fi woon ba noppi assainissement bi ñu a def biir kër sëñ Touba tamit euh, euh, yaa ngi koy gëstu ko war a defar lépp noppi ne dañuy xaar gëstu bi noppi rek ñu daat koy song moom it daat koy yóbbaale lu ci wàllu ndox mi daaw ci ja waxtu wii rek daa tolloog forage yu bari paanoon ci dëkk bi tombeek tamit ci jamonoy mbas mi couvre feu amoon ba nga xam ne roti guddi du woon yomb pompe ya paanoon yëpp Touba ca kanam jëndoon na ko ca jamono jooja quartier yu baree bari tamit xëcc nañ ndox yóbbu fa lii ci tënk mooy li nga xam ne mooy mooy mooy lenn ci liggéeyu liggéeyu liggéeyu daaw bi. ñu leen di sant leen gërëm bu baax a baax a baax di taxawal doxin ci njëlbéen nga waxoon naa leen gàllankoor amut àgg ci dëkk bi lépp mën ngeen ko yor moom laa gisoon te ak ngeen foo xam ne benn rek ngeen ja ngeen jéggi dem te du leen du leen taxaw. Pastef bi leen taxoon a jóg ca dara soppiku Pastef nanguwul yox-yox yi bu ca dara soppiku déedéet yow yow laay waxal ndax ñoom ñëpp dañu xool si yow tey déglu yow kon na nga xam ne yow alhamdulilah rabbil alamin jiitu gi xel dal na ci ànd si rawatina kilifa day seet boppam ci biir mbooloo mi loo xam ne mënu ko mënalu ko mbooloo mënu ko ci biir mbooloo mi ci wàllu xelam ci wàllu jikkoom mu yaakaar ne lool moom am na ci gant il faut que mu am kooku mën a loolu ku ko féete ca loola abdoulaad mi mën na loolu góorgóorlu leen rek bu ngeen góorgóorlu góorgóorlu ci waxtu bii moom dem rek te yaakaar na li ngeen weesoo gis ngeen ni mu demee fa tabaarakallaahu lu bett ñëpp la lu kawe njort la lépp di di di sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dëggu dëggu ci yéen sëñ Tuubaa nekk ci yéen ngeen ngeen ngeen jóg ngir sëñ Tuubaa loolu li ñu weesu lépp leer na taalibe yëpp nangu nañ ko xam ñëpp xam nañ ko man nag man ci njaal bi waxoon naa leen ko man li ànd ak yéen man damay dama dama damay maag maag dama damay wut fukki murid sadex yu yu ko yéene te mënuñu ko ma ma joxeel leen muy muy muy fukk maa maa ngi ñoom bi nga xamee ne yàlla dogal na liggéey bii dama wax dama war sama yëpp sama lépp sama lépp sama lépp sëriñ bi dama ko war a yokk jëm ca kaw loolu moo tax ma ne kon def naa ko téeméer waaw dama def naa ko téeméer juróom-ñeent fukki murid saade ak juróom-ñeent ma fukkeel leen ñu nii. teg maa ngi noyyi rek maa ngi noyyi rek te yaakaar naa ne maa ngi ñaan am ñu ma ca wuutu <laughs> kon sa yaay bi mu ngoog mu ngoog bu mu ngoog noonu dong la demee bo bokki taalibe yëpp dégg yi añ yi bokk yi bokk ci liggéey bi ci bokkul na ko ñëpp dégg waaw ne ko jëpp dégg waaw noonu dong la deme kon noonu rek la demee waaw eh, xanaa ñaan nag ci baaxu sëñ Tuubaa seen borom gën gën leen a gar nag tawfeex sëñ Tuubaa rek ndax tawfeex lépp lépp lépp lépp tawfeex sëñ Tuubaa la waaye nag ñu gën leen ko ñu ñu ñu gën a yokk waaw ñu gën a yokk te eh, tawfeex sëñ Tuubaa ci yéen ba ngeen mën a dem ni ngeen ko bëggee sëñ Tuubaa gàtt leen ngërëm moom waaw ngeen mën a dem na ngeen ko bëggee sëñ Tuubaa gàtt na leen ngërëm moom kenn ku ne xam nga fa nga toll ci lu baax waaye fa nga toll ci lu baax nag loo ca weesu rek geesul rek weesu xeeb ko mel ne ku door a jugaat kay nga tàmbali loo ca weesu rek xeeb ko ci li nga jëm waaw ah, yàlla yàlla yombul yàlla yombul yàlla yombul waaw bi moom mooy kenn ku ne boo buñu jàggee nga def la nga man rek la nga la nga mën sa kem sa kem kattan bu sell waaw it jëmat sëkk loo ca man loo ca mën rek ca ca ca ca li nga xam ne yaa ngi koy def te xam da nga dimbalee nga ko bëgg a dimbale miskin yi néeg ju doole yi ndax loolu kon mooy social bi kon nag loolu moom ñi ko ñëpp dégg lu ca waay man euh, na koy def bu mu xeeb bu mu yéem waaw bu mu xeeb bu mu yéem waaw mana mana ma wax la fii ne la ay silmaxa lañ silmaxa nag bu nekkee ci ab néeg edam nekk ci nii ba saafara nekk nekk ci xamee wu ko kuñ dimbali wu daal yàlla dimbali ngi Sëñ Tuubaa rek waaw bi dañ ñu yëgee bu ñu yëgul moo ñuy gindi loolu bu ci tiit dara moom tawfeex sëñ moo ñuy gindi waaw tawfeex sëñ mooy gindi sëñ sëñ bi tawfeexi boromam la. wuy ji di fi nekkoon ku ne ko topp ba ba ba gërëm la. sa mag yi fi nekkoon ñoom gën la ba gën la lii nag kenn kenn neexlu ci kenn ñëpp dañu war toog bi ñu lay gor fas ñuy jox suñu bopp suñu lépp nga suñu Tuubaa duñu la war mukk ci àdduna Mbàkke duñu la fa kasal ci àdduna bàyyi leen suñu bopp bàyyi leen sa bopp bàyyi leen suñu bopp bàyyi leen sa bopp ñaan nañu rek bu ñu seytaan aw yoon waaw waaw ku demul kay noppi naa ku dem ma dem ku demul ma dem loolu laa bëgg de jàmm bu ne sañ naa wax lu mu bëgg xaw ma ci sama bopp dara mënul lu ma sama bopp dara doonu ma ci sama bopp dara waaye nag li ma bëgg moom moom ak lu fu ma a toll li ma bëgg rek mu ko dem ma dem ma ko dem ma dem ah kay dañuy ànd kon dañuy ànd. <laughs> wajalilaayi maskani tuuba misras mi abijaayi xayri man abaat